mu ne banque centrale day jéem a xool at miy ñëw euh, koom-koomu réew mi nan la yokkoo euh, gouvernement bi nan lay doxalee kopparam suñu jëflanteeg bitim réew nu mu demee ndax euh, xaalis muy franc CFA bi nekk ci ñun li nga xam ne ne moo koy may wér yaram mooy poñ yooyu yëpp muy nekk poñ yoo xam ne day ñëw jàppale ko ndax dëkk bi mi ngi jëm kanam ci buñ ko xaymaa li ñuy wax taux de croissance bi nu xoolee senegal gis nañ ne 2019 réew mi euh, alalam yokk na 6 pour cent mooy téeméer bu ne juróom-benn at mii ñu ne yaakaar nañ ne dana yokk 6 virgule 8 pour cent loolu nag dafa bokk ci taux de croissance yi gën a rëy ci àdduna nga xam ne ni dëkk yi bokk CFA ñoom loolu lan am mu ngi toll ci juróom-benn wala juróom-benni at juróom ba juróom-benni at booy xool li ñuy wax ndax ab dëkk ngi jëm kanam ñun ñoo ëpple taux de croissance ci àdduna bi ci ñu ko ëppale lan bokk. Euh, déficit budgétaire bi tam xool nan ko mooy gouvernement bi diggante li muy am ci xaalis ak li muy dépense réew yépp dañuy am déficit budgétaire ab réew c'est nga gis réew moo xam ne day am excédent budgétaire mooy ne. la muy am ci impôt euh, mu ëpp langue bi la muy dépensé donc euh, réew moo xam ne ne da ngay defar sa bopp da ngay tabax sa bopp toujours da nga am déficit budgétaire Union monétaire ouest africaine nag danoo d'accord ne déficit budgétaire bi warul weesu 3 pour cent wu alalu réew mi bin ko xayma Sénégal yegg na fa euh, lu ko jege 2020 bi 3 pour cent yi dana ci dugg bam set wecc xool nantam mbiru bor yi ndax bor tam dañ koy dañ koy natt dañ koy peese bi nu peesee bor yi senegal am booleeg alal ji nga xam ne ne mi ngi yeewoo ci réew mi ngi réew maa ngi koy euh, am gis na ne taux de de endettement bi euh, nekkagul lu jaaxal kenn ndax repère bi am mooy nattukaay biñ ci am mooy ne say bor wërul tolloog sa alal bi nga am bi nga am ci at mi boo xoolee alal mi alal ji di pour cent yi may nan la ko nga dem lebi ko te Sénégal fin 2019 53 virgule 7 pour cent la toll xool na te mbiru déficit courant bi mooy balance de paiement bi suñ deflanteeg bitim réew nga xam ne ne day wan ndax ñun euh, li nuy jaay bitim réew ak lañuy jële bitim réew muy moodu moodu yi buñ ko xaymaa ak li nga xam ne dañ koy jënd ji bitim réew walla ñu ciy fay bor nu mu toll loolu la ñuy tuddee déficit courant déficit courant bi mooy bu nu xoolee ne woon tey dañuy régler waa bitim réew ñoo leen yoreel wala ñun ñoo leen yoreel buñ ko xoolee Sénégal leen yoreel at mu ne li ñuy soxla bitim réew moo ëpp ñun li ñuy jële bitim réew ñu ngi ci huit virgule quatre pour cent fin 2019 waaye loolu li ko expliqué li nga xam ne ne mooy moo ko indi du leneen lu dul ne li ñuy lekk dafa bari luñ ci jéggaane day day yàq lool sunu sole de balance de paiement ñaareel ba pétrole bi bi euh, bi Sénégal di importer ndax dégg ngeen courant bi yokku li ko waral mooy facture pétrolière bi Sénégal li muy jënde bitim réew ci pétrole yokk na ñetteel bi aussi réew mi ñu ngi koy tabax tali yaa ngi fi entreprise yaa ngi fi il faut ay machines yi dañ koy jënd bitim réew loolu itam euh, bokk na ci li nga xam ne ne moo tax solde courant bi baaxul waaye euh, wuute na ak solde courant boo xam ne day yéeg noonu rek te amuñu ci xalaat ne dana wàccaat li wër ba wér jaa gis nañ ne fileeg 2022 dem jëm 2023 dana nekk à cinq pour cent muy li nga xam ne ni moom lañ jàpp ne am réew mu bëgg a am sa digganteeg bitim réew bañ am problème ëllëg soxla nooy financer say li ngay jënd bitim réew nga bañ ci am problème da ngaa war a ñëw ba cinq pour cent.